julit di ñuy jullit ñëpp di leen ndokkeel ci koor gi di leen baalu xaq di leen baal eh, di ñaan suñu borom yiw yi nga xam ne moom la dëxëñ ci weeru koor yàlla yàlla bu yàlla defal ñu ci far gi muy fara bàkkaar suñuy bàkkaar ak yëkkati gi muy yëkkati ay daraja yàlla nañ ko bu yàlla defal eh, di nuyu ñi nga xam ne si ñoo fi ñëw di waa Louga TV eh, di dox ci euh, wàllu lu jëm ci wàllu diine li ñu ci euh, wax ak borom xam-xam yi pour ñu ci laayante biir maanaam ci euh, diine ji loolu ñu ngi leen ci ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu seen kilifa gi ak ñi nga xam ne si ñooy ñoo fi teew ñi yore waayu liggéey bi ñu ngi leen di ñoom ñëpp di leen sant bu baax ci ñëw génn fi ñëw di ñaan wax wax wax ji nekk wax joo xam ne waxu njariñ la nekk wax joo xam ne day tegu ci dëgg it ndax diine ji diine mooy laayante biir laayante biir mooy waxante dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ad diinu an nasiha diine mooy laayante biir laayante biir nag mu ni ko ci nan lañuy laayante biir mu ni ci yàlla ñu yàlla nan koy laaye biir mu nga jaamu ko te bu ko bokkaale su boobaa tudd ci mbaaxu yàlla tudd na la ku ko laaye biir Eh, loolu tamit ñu taxaw ci point boobu maanaam nit ñi eh, lu mën a xew ab julit lu mën a xew ci àdduna bi dafa war a delluwaat ci diineem ndax islaam baywul dara lépp loo gis mu xew ci àdduna bi rek am na eh, islaam atteem lu lu la ci wax te daganul ci ab julit muy def dara te xamul ci yàlla wax nit ñi ñu xam ni dañoo am boroom boo xam ne moo leen bind te moom leen ñu nga engagé ni mañ jullit laa kon nag li la war yow muy nga tënku ci li la sa borom digal moytu ko ay tereem li la war mooy sa borom boobu bu ko jaawale ak dara nga bañ koo bokkaale ak dara xam ni mbooleem lu am yàlla ci mi am ci dogal suñ borom waaw da nga gis événement yi xew ñu feebar bi moom nit ñi moo fi am e, fa bëgg a jëme nit ñi foofu jëmul ci wàllu wéetal yàlla mooy tiit ab jullit dara warut xew ba tax mu tiit te kenn warut a jéem a dox tamit ci tiital ab julit loolu loolu day yokk sax beneen feebar ndax ku gëm yàlla sa ngëm yàlla wér dara mun laa yëngal jara mu laa tiit donte nag liy teggin danga jëfandikoo sabab yi tax yàlla musal la ndax feebar ci boppam du yàgg ne feebar bi mooy rey walla docteur mooy faj wala garab mooy faj yàlla mooy faj ku gëm ni garab mën naa faj wala docteur mën naa faj léegi yow yaa ngi bokkaale ak yàlla kon nag waaye teewul nag da ngay jëfandikoo sabab yi ndax loolu mooy teggin waaye bu ci wéeru nag bu defee ne sabab bi mooy tax nga nga nga jariñu e, sëñ sëñ Babacar moo tënk ci benn tënk ni sabab lu bu leen sukkandikoo yëngu ya loolu mooy teggin da ngay jëfandikoo asbaab yi am waaye nag bul bul bul sukkandikoo ci yëngu yi ba yëngu bi mooy tax nga am wala moo tax nga wér wala moo tax e, e, dégg nga nga am li nga bëgg a am yàlla ci boppam mooy wéetu jëf ak dindi loolu ku ko xamul maam yaa ngi bokkaale ak yàlla nit ñi tamit loolu war nañ koo xam bu baax te dellu ci yàlla e ndax mbir mu ñëw ab jullit xéewal lay nekk ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni feebar bu ñuy tuddee maanaam mbas loolu xéewal la ci jullit ndax feebar boobu maanaam bu fekkee moo am ku mu ku mu dal boo ca faatoo yoonu bi sallallahu alayhi nee na e, yow dégg nga nga danay lay jàppee ku dee dee ci jihaad Eh, mas naa am ci ay jamono maanaam waaye nag jëfandiku ñu ci daan saaba yi daan jëfandiku ak boroom xam-xam yi maanaam dañ ko daan jëfandiku teg ko ci ngëm rek ak wéeru ci yàlla ak doylo yàlla xam ne dara du leen dal lu dul lu yàlla ate xul lan yusibana illa ma kataballaahu lana dara duñ dal lu la nga xam ne yàlla moo ko dogal loolu nit ñi il ñu dellu ci te bàyyi tiit mi jullit bu dara xewee yonent bi ni xéewal la yow nga ko def am tiit ba egg ci maanaam ñi ñu koy baat yi ñu di ko jëfandikoo baatu guerre maam ci ab julit amul ju amul amul droit ab feebar xew nga ne damay guerre xeebar bi baatu guerre kenn du ko jëfandikoo ci feebar waaw ndax loolu yaa ngi mel ne kon yàlla ci boppam nga ngay defee te koo boo ko defee musiba rek moo la cay fekk waaw l'heure est grave naan na gars naan l'heure est grave l'heure ci jullit l'heure bu grave mooy nga def lu la yóbbu safara l'heure est grave mooy feebar bi nga jëfandikoo ci jëfandikoo bugg yàlla gërëmul loolu mooy l'heure est grave waaw nit ñi war nañoo delluwaat ci yàlla sëriñ li ñu koy doyee mooy mu xamal ñu ko yàlla xamal ñu ko yonent bi sallallahu alayhi danga dégg jamono jii ñiy wax ci diine dañuy wax ba ëppal di indi ay ay ay régal yoo xam ni kenn jàng ko ci benn téere jamono yi dégg naa koy wax ni ulul amri mooy médecin yi loolu koo wax mooy yow mu yow diine mosoo ko jàng suñ borom dafa wax ci alxuraan xul at yoon saa waxal waxal jullit ñi xul atiullaha waxal leen ni nan topp yàlla dégg ndigalu yàlla bàyyi ay terem te yàlla ku toll ne yàlla bu la digalee war nga ko def bu la ragalloo dara tere la ko war nga ko bàyyi moo tax nit yàlla wax na ngeen ragal li leen yàlla ragalloo xol yu wow rek mooy tax nit di ñeme nekk ci lu yàlla tere ba pare xaram du dal boobu xol ba dafa wow mu na ngeen wa rasul na ngeen topp yonte foofu amul condition amul seet amul xalaat topp yàlla topp yonte bi amul amul loo ci tànn yàlla wax na defal tere na bàyyil mu teg ci nag wa ulul amri minkum ak ñi méngoo seeni mbir moo tax am benn xam-xam bu ma ko wax ni nit ñi duñ bàyyi xel yàlla dox wa ulul amri minkum la wax minkum baatu minkum bi moo teqalee ñan ñooy umur ul amri waaw eh, yi ñu suñ président yii bokkuñu ci urul amri waaw ul amri yàlla dafa ne minkum ki te bokku ci yéen baatu minkum boobu moo tax alxuraan ni waxee dafa dafa sew mooy kooku day fekk nekk na jullit nekk koo xam ne si day àtte woo àtte yàlla bépp nguur gu àttewul àtte yàlla duggoo ci ul amri léegi nag yow li la war yow ci nguur goo xam ne si dafay attewoo loolu yàlla te ngay te ngay jullit mooy bu ko ñàkk teggin li nga xam ne si maanaam mënoo ci dara ci li dëppoo dégg nga euh, li doxal réew mi loolu nga tënku ca waaye nag yow li ngay li ngay tënku dëgg-dëgg mooy alxuraanu sunna guur nguur gi bu ñu santee loo xam ni suñu diine dafa ñu ko tere dina ñun dégg wax bi euh, xalaatuñu koo def te waruñu koo def it moo tax alaaj Abdou wax ni ñun benn code loolu am benn code mooy alxuraan benn dustuur loolu am mooy alxuraan loi ci jullit mooy li nekk ci alxuraan suñ borom wax ni maanaam ñi nga xam ne si dañuy àtte woo lu dul lu yàlla tëral fa ulaa'ika humu zaalimuuna ñoom ñooy tooñkat yi ñoom ñooy euh, euh, ñi nga xam ne si ñooy ay kàccoor ñoom ñooy yéeféer yi waaye yéeféer boobu nag àttewul yàlla àtte nga ni kooku mooy usuñu ulu am bi ñu dem ba nit ñi egg ci ak réer ba wax ni docteur yi ci ma léegi jamono ji ñooy am amri loolu mooy dafa am ci islaam dafa am benn fànn bu ñu tuddee usulul fiq usulul fiq moo lay wax atte bu maanaam masala yi ngay jëfandikoo lan mooy cosaanam wax la atte bi wax na lu ne dafa am ay règles yu ko tënkaat léegi règles yooyu nag boo ko xamul doo mën a dégg masala yi moo tax kenn amul droit sax di wax ci masala te fekk jàngoo règles yooyu ba pare docteur boo xam yow jàngoo dara ci diine nag ngay taxawee di wax naan dégg nga benn ay gars yi di xumbal naan jamono ji ul amri mooy mooy mooy mooy médecin yi déedéet te ñu bàyyi xel tamit benn mbir mooy médecin ba islaam di jël kàddoom dañ ci am dafa am condition faw mu nekk ku ragal yàlla ba ko faw mu nekk jullit ba pare ragal yàlla ñaar yooyu bu dajee bu dajeewul boroom xam-xam musiba mi xew ci àdduna maanaam ab jullit sax amul droit di dem ci fekk jullit yi am am na ay jullit ñu fi nekk mën a faj ngay dem ci yéefar yi mu lay mu lay faj docteur boo xam ne médecin la doc maanaam docteur boo xam ne kon yéefar la yow amoo droit di faju ci moom loolu la ko tere li ki ngay fajoo mooy docteur boo xam ci sart mu nekk jullit waaye jullit bu ragal yàlla Seydi Hadji Malick dafa am wax benn wax bu mu wax boo xam ne si ñu bëri dégguñu wax bi dafa wax ni man bëggoon naa jàng médecine Euh, waxul faj sëñ Xaaji Maalik moom mën naa faj moom dafa affaire garab yii da koo xamoon El Hadj Mansour nee na li mu xam ci faj El Hadj Maalik moo ko jàngal kon waxul affaire faj médecine la wax médecine nag ku xam baat bi li muy tekki gën naa yaatu affaire ay faj ak yooyu maanaam dafa xam na ni jamono dana ñëw wala ñu ngi ci jamono boo xam ne si dana am musiba yu rëy yuy xew ci jullit ñi mu ngi jaare ci médecine lay jaare te loolu yahud yi dañ koo wax. maanaam ñoom see bokk na ci seen i ni ñuy di ni ñuy jëfandikoo seen diine mooy ñu ni éliminer ab julit moo tax julit ñi ku gëm yàlla da war a wattandiku di feebar rawatina kuy défendre diine ji ngay dem ci hôpital yu mag yooyu soo deful nag da faagaagal yooyu nañ ci bàyyi xel parce que bëri na xam nga jamono ji ñi nit ñi la lëjale nit ñi ci wàllu googu te yëggale médecin yi foo xam ne egguñu fa médecin dafa am médecin bu la nee téere fiq yëpp d'accord na ni ab médecin boo xam ne yéeféer la bu la nee yow de mënoo eh, jàpp maanaam bàyyil bàyyil njàpp te nga te nga tiim nga jëfandikoo wax ba mu dem tiim boo jullee amoo julli il faut que mu nekk jullit ba d'abord ba pare nekk ku ragal yàlla léegi nag bu ndewee nag ba médecin yi wóolatuñ leen dañu war a teey ci seeni mbir ndax jullit dafa war a xam ni waxuñu ñu bàyyi waxuma loolu ñu bàyyi mais dafa am gravité bu ci xew ak lu nekk ci biir politique bu ci xew bu garaaw boo xam ne si manam dafa am lorangi gu ci juddo te nañ ci baye xel bu baakha a baax loolu lépp ñi ci manam ci yàlla laayante biir ci walu baña a ak yalla rek ndax yeen na dafa wax ni kep ko xam ne deewoole wu ak ngëm do dem aljana kon nak julit ñi nak do wara fexé ba ñun ñu fexé ba gëm yalla yeen saasam neena na du ngeen dugg aljana mupp lool di ngeen gëm du ngeen gëm mukk lool di ngeen bëggante bokku na ci bëggante rek moy waxante deug biir nit ñi ña fexe tënku ci dëgg dëgg mooy yàlla léegi Sénégal moom li fi xew mooy kenn ku ne diw daa bu ma neexul bu waxee dëgg dégg nga kenn du ko ndax waa ji neexu la kii moom ma neex lu mën a wax nga nangu ko te yenn saa ne loolu ku ko def yaa ngi bokkaale yàlla kon nag dëgg moom fu mën a jógee danga nga ko war a nangu te ñun ñëpp nan ànd ci dëgg te yaaj maay bay wax ci euh, xutbaan ba dafa ni iyaakum waxta waxta xaaluf maa ngi leen di wattandikuloo wuute ndax duli ñi bu néewee doora rek dama dañoo nekkul benn mu ni waatasimu bi xablillahi wata taaluf yéen ñépp na ngeen tënku ci dégg nga euh, buumu yàlla gi te mooy alxuraan ak sunna wa taalufu te ngeen tàppoo nekk benn maanaam mu jiital tënku gi ci buumu yàlla nekkati buñ tënkoo ci buumu yàlla gi rek par force day nekk benn bu ne buñ ci nekkul benn rek am na ñu bàyyi dëgg gi am na ñu bàyyi buumu yàlla gi kon nag bu na ñépp jàpp ci buumu yàlla gi waaye buubu yàlla gi nag mooy alxuraan léegi alxuraan est-ce que ñëpp sañ nañ cee wax ku xam moo ciy wax wax yoon tamit ndax ñëpp sañ nañ cee wax ku xam moo ciy wax li ñuy jële ci alxuraan ak sunna ñi ci war a wax ay mujtahid lañu tuddee moo tax téeri fiq yi ku bëgg a dégg alxuraan bëgg a jëfandikoo alxuraan da ngay jëfandikoo fiq yoon saa sa wax ni man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne yàlla nam na ci aw ci yow aw yiw dafa lay déggloo diine ji mooy da ngay jàng fiq léegi dafa am méthode bi xew benn fiq bu xew mooy léegi da sax koo xam ne jàngul diine maam tubaab la jàng dem di liir ay tradition naan Buxaari nee na loolu dafa xaram loolu daganul pour nga firi a alxuraan da am na fanweeri matière ak juróom-benn war a xam maanaam boo ko tasee fanweeri matière ak juróom mu nekk boo ko tënkee nag mu nekk ñaar fukki matière ak juróom-benn yooyu faw nga xam ko pour mën a dégg aaya alxuraan wala nga dégg xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa léegi nag lool lool lu mat a bàyyi xel la yoon saa sa wax ni nangeen ngeen laaya biir ak ci yonentam lan mooy laaya biir ci yonent bi sallallahu alayhi mu ni mooy ngeen tënku ci sunnaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu yàlla royloo boo tënkoo ci sunnaam nag yàlla jàppe na la ku ko laaya biir may yàlla dana may tuyaaba mel na ku ko laaya biir xool tuyaaba ni mu rek léegi nag sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag boo ko bëggee dund mooy da ngay jëfandiku mooy téere fiq yii mboolem xadis yi xadis yonent bi la tarjama bañ cey wax lañ Buxaari la muy wax ci tarjamaam ci ci ci xadis loolu mooy fiq bi mooy li ñuy pratiquer moo tax kuy jëfandikoo fiq yaa ngi jëfandikoo jëmmi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu kenn mënta ku bàyyi téere fiq yi yow doo doo da ngay da ngay sànq sa diine yoon saa sam ne ku yàlla namm ci aw yiw dalay lay déggloo fiq mu ni képp koo xam ne sama sariya bi da euh, nekk juróom-ñaar fukki xaaj juróom-ñaar fukki daat euh, ñetti téeméeri daat lay doon ak juróom benn fukk mu ni képp koo xam ni nag maanaam am na benn ci dat yooyu am na benn njiit bu ci yàlla bu yàlla samp mu jiit ko imaam Malik imaam Shafi yàlla si sam nee ñooñu koo ci topp ëllëg boo dégg yàlla da nga mucc kon nag yooyu tamit ci laay biir gi la bokk ak laay biir ak ci ñi nga xam ne ñooy uul amri ñiy méngoo suñu mbir ñooñ na la leen di laay biir mooy feeg bi ñu ngi ñu digal yàlla wax li yàlla wax feeg ñi ñuy wax li yonent wax ñu topp leen loolu te kenn amul dara wuuteeg ñoom bu boobaa léegi nag ñan ñooy uul uul amri ndax président yi ñooy uul amri président yi moom waxuñu yàlla neen yonent bi nee ñoom dañuy wax seen seen république la ñuy wax ñun nag uul amri ba jamono ay jamono islaam dañ ko organiser woon mu am benn njiit loolu daanaka loolu amatul daanaka dégg foo dem kenn ko ne sa kilifa bopp li li fi xew kon mooy borom xam-xam yi ñu xam ne am na xam-xam di wax diine di wax ngir yàlla ñoo ñooñu seeni wax mooy taxaw taxawaayu ul amri waaw waaye du jàggee ni ab euh, dégg nga ñu ni médecins yi ñooy euh, loolu yooyu xool yooyu wax xeetu caaxaan rek waaw naka la médecin di nekkee ul ul amri médecin kay bu waxee. te kenn du jëfandikoo wese waxoo médecin médecin bi direct médecin bu waxee nag borom xam-xam mooy sukkandiku ci waxu médecin bi ni la leel ci yàlla wax nga jëfandikoo ko mais médecin bu amul droit directement dikk naan la di la digal wala mu lay tere loolu islam mayu ko benn médecin médecin amul droit tere dara loo xam si yàlla da ko yàlla da ko digle ma maanaam mu di ko tere wala mu fekk loo xam yàlla da ko tere mu di ko digle waaw ah, lim sañ moom wax la man lii laa xam ci médecine islaam am na àtte bu mu ci wax nga jëfandikoo àtte boobu kon médecin bi dafa laa dimbali gëstu la feeñal la mbir mi dafa participer ci mbir mi waaw su ko defee jullit nag loolu loolu war a xam mu ak waxante laayante biir seen biir yéen jullit ñi mooy ngeen di waxante dëgg waxante dëgg nag mooy ñu waxante ñun ñi nit ñi nan wéetal yàlla nan bàyyi bokkaale yi yàlla ci boppam ah kenn du ko nurule ak dara yàlla ci boppam kenn du ko kenn du jël mbir yi di ko boole yàlla ak leneen yàlla ak yàlla leneen amul yàlla rek moo fi nekk lépp muy ci loxoom amul dara luy yëngatu luy dal lul ci coobare yàlla jullit bi nag ba mu gëmee yàlla xam wéeru ci yàlla su boobaa nag day doyloo yàlla gëm naa yàlla rek yomb na waaye nga doyloo ko nag soo ko doyloo nag xam ni wéetal nga ko boole ko léegi nga tënku na ci lim la tënkuloo moo tax jamono yi ñu nekk mu nekk jamono yoo xam ne si jamono koor la mu nekk benn ponk bu rëy boo xam ne si ci ponk yi lislaam yi ñëpp di woor di ñaan yàlla nanguñu suñu koor e, e, layatul xadar yi maanaam e, xam nga ci yenn sax dafa neen ko da ngeen ko maanaam neen ko xool ci fukki fan yu mujj yi neen ko ci nemmeeku te xool ko ci bis yu tool ya ci lañ gën a yaakaare mu nekk guddi goo xam ne si guddi gu rëy la ngëneel julit ñi bu weeru koor ñëwé ñukoy bàyyi xel motax li gëna wër kon moy nga magal guddi yépp boko défé da nga dégg da nga dégg lu xat suñu borom ni ñuñ alquran ñu ñoko wacce inna anzalna fi laylatul xadri ñoko wacce ci laylatul xadri laylatul xadri nak xayrun min alfi shahrin manam mo gën mo ëpp doole junni wër guddi la go xamni ci tanazzalul malaikatu wa ruux fiha malaakai dañ fi dañuy wàcc boba xama yàlla waxul تنزل الملائكة waxul lool tatanazzalu la woon tanazzalul malaikatu léegi na ñu woyofal ko ni tanazzalu mooy day day malaaka yi nan mel dëgg-dëgg loolu du wàcc loolu xajul sax ci àdduna bi am na malaaka xam seen tàng sax xajul ci àdduna bi man su ma ne tanazzalu malaaka yi dañuy disponible dañuy jël yeneen jëmm yoo xam ne xaj na ci àdduna bi ñu ci la ñuy wàcce jëmmi leer ndax malaaka bu ko neexee nekk jëmm ci bàyyi bu ko neex ba mu des yi ñu sib du nekk malaaka du nekk xaj du nekk jaan du nekk euh, mbaam xuux du nekk lox maam jëmm ju rafet lay doon ma nekk nit wala doomu aadama wala fas sax mën na ko nekk waaye du nekk jëmm joo xam ne si euh, dégg nga wax bi dafay dafa dañ ko nit ñi dañ koo sib su ko defee nag noonu lañuy ñuy wàtte danoo bari war ruuxu fiiha jibril naa jibril dafay wàcc moo tax bu ñëwee nag kon nag guddi gi rëy na guddi gu jaral yàlla di digal malaaka yi ñuy wàcc waaw ñu ñu nag ñu koy màggal noo koy màggale naka yoon bi saa sam waxee maanaam fexe di ci ñaan yàlla njégal di ci ñaan yàlla faral say bàkkaar di ci ñaan yàlla maanaam yàlla raxasal la sa raxasal sa xol ba feebar yi nga xam ne si mooy tax mooy gàllankoor nit ba jaamu yàllaam du nangu yàlla musal la ci ndax am na feebar yoo xam ne ku mu nekk ci yow lu mel ne kañaan wala rëy wala euh, dégg nga bañ ab julit loolu day tax boo julee du nangu ngay ñaan ci guddi googu nag yàlla raxasalal sa xol allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni waaw ñiy teg ci allahumma innaka afuwwun kariimun lépp baax na sayyidatuna Aïsa moo ko wax laa yoon soos ni bu ma dégg leetu xadar lu ma ciy ñaan mu ni ko wokk ñoq ñaan goog nga ci ñaan su ko defee nag loolu nag lu mat a profito la koor gi koor gi yëpp sax moo nekk por kooru profito bëri loo ci jàng alxuraan nga fexe ba jàng ci koor gi maanaam ni dangaa eh, dem jàkk xam nga foofu sax xëy na mën naa jeexal foofu ci ci wàllu koor gi maanaam njàngat yiñ ci war a amee fexe koo xam ne fonkul woon dem jàkka mu fonk ko ndax de danga jamono jii tamit bokk na ci li gaay di wax ci xam ay njuumte yu rëy rëy la maanaam julli si kër ak julli jàkka ñooyam loolu ko wax nag xamoo diine julli dem jàkka maanaam julli moom ci boppam farata la defe ko ca jàkka ja loolu sunnatun mu akkat la sunna mu àkkat nag mooy lu war mooy waajib ci mazhab Malik waajib la am ñuy julli ko defe ko ca jàkka ja farata la si xaj maa ci la bokk mu ni li ko gën a tegtale mooy suñ borom wax gi wax ci alxuraan warka'u ma'a raaki'iina na ngeen rukoo ànd ak ñey rukoo loolu ci wàllu balaaxa ñu ni duna tudd rukoo waaye liñ ci namm mooy julli gi yëpp na nga julli ànd ak ñey julli lu tax mu sepp ci rukoo bi nag moy ruko, mo gëna jafé ci julli ñu bari sax bu né ba ba télé li ñu gëna télé ci julli moy ruko kon na nga ruko and ak ñay ruko ña kon té loolu impératif la ndigal la lo xamni si amul ben lu lo wax ji luy wané du farata limi tekta lepp mot seyd tax seen xaajmaa ni warkaaw na ni julli ci jaaka ja farata la kan mo du dem jak moy jigen dem jàkk waruko ak xalé de nga de nga euh, ak ko xamni dafa am ngànt ngant sharia ngant nag du liggéey ngànt du soxla lan mooy ngant feebar walla nga fàtte woon ko yooyu mooy ngant su ko defee nag nga defee ko ci mbooloo ma mu am yeneen yu yéen saa waxaat ci ñàkk julli ci mbooloo lu gën a tiitlu moo saa su ni bëggoon naa def sama jëmm ñaari jëmm benn jëmm ji da ko wax ñaari xadis la am na xadis boo dafa wax ni bëggoon naa jël sa digal kenn mu jiite am bu ni bëgg bëggoon naa digal Seydina Aboubacar mu jiite nit ñi man ma yónni xale yi ñu wutal ma matt ma taal ko fekk ñi nga xam ne dañuy jullee seen kër yi ma taal seen kër yi ci seen kaw. ñu ne ah bu fekkul woon nag julli du farata yonte bi du ko jaral maanaam mu lay rey ci ñàkk jëm jàkk beneen bi ibnu anas ibnu malik wax ni ñun nin daan xàmmee naafeq yi ci yema yonte bi sallallahu alayhi wa mooy ku dul dem jàkk ñoo xam ne kii ci naafeq yi la bokk yoon saa sax waxaat benn wax ni laa tusallimu ala yahuudi ummati bu leen bu leen nuyu sama yahutu xeet ñun ko sa xeet dafa am ay yahud mu ne aha kay am na yahud mun ñeen mooy yahud mooy ne allazina yastamiuna nidaa wala yujibun ñiy dégg nodd te nu wuyu ji ñun yoon sa ñooñu bu leen roobee ci mbedd bu leen nuyu na abbas wax ni ku doon jaamu yàlla ibadata saqalay nii maanaam nit ak jinne nin baree ak nin toll Seni jamu, seni julli seni wor seni acc seni zikar yow kenn nga diko defando mun te doo dem jakka bo de safara ga jëm kon nak kon nak motax borom xam bu ndé wax da nga dekk nan julli jakka sunna rek la mais sunna mu akkat la ci mazhabu malik mais amna na ñeen ñoo xam ci liñ and moy farata la lul nga am galankor bo xam day tax doo dem jakka ah kon nak wax yoy tam nañ ko bàyyi mais tay dégg naa médecin mu wax muy wax ni maanaam mag ñi dénga jamono feebar bii dégg nga mag ñi bu dem jàkka ja waa léegi takk masque ko lu muy jël xam la la moo tax sax li ma gën a jaaxal mooy lu tax ñu siibale jàkk yi lan moo tax waxuñu mag ñi bu dem marché la moo tax mag ñi bu dem ci bërëb liggéey yi pourquoi waa jàkk ji lu tax gars yi jàkka déranger leen da nga di gars yi ndax war na war nañoo ubbi jàkka yi war waruñu ko ubbi jàkka yi dañ ko wurtu woon a tëj ba koy ubbi tëj jàkk moo amul ci islaam te sax mi ngi soo a am tëj jàkka yi ñëpp nañ day tëj jàkka ku tëj jàkka amul foo ko sukkandikoo ci alxuraan amul foo ko sukkandikoo ci hadis mboolem wax yi gaa yi wax ci tëj jàkka seen tegtal yi ni indi yëpp tegtiwul lool tegtalawul te sax day gën a tekki ñi sax gaa yi jànguñu dégg naa benn waaye mu wax ni euh, yonent bi saas na fa ne feebar bu amee ci ab dëkk bu amee ci ab dëkk sa te loolu sa moo ko wax lu mel ni ki mbas te mbas mii feebar bi tuddee ko mbas musiba la de ndax yoon saa dafa waxoon mbas du dugg madina te dugg na fa kon la fa dugg du mbas boo ko tuddee mbas weddi nga wax yonent bi kon kenn mënu ko tuddee mbas da nga feebar la rek bu am bu tudd corona waaye mbas la nag loolu boo ko waxee da ngay weddi wax yonent bi kon politique am na ci yoon saa tam ni ni feebar boobu feebar ku ko dégg ci ab dëkk dëkk ba mu nekk maanaam bu fa dugg yow ku fa nekk bul génn ngir daw firaaran minhu ngir daw feebar bi muy nag ku taqoo sa kër dégg naa benn waay bu wax benn xamagaay yi il faut ñu seen expression yi ñuy wax yonent bi ni na ngeen toog seen kër baatu na ngeen toog seen kër yonent bi waxu ko loolu soso yonent bi la yonent bi def ni ku toog sa kër ku toog sa kër ak toogal sa kër bokkul ku toog sa kër loolu insha allah lañ ko tudd ci arab toogal sa kër impératif la ndigal la yonent bi diglewu loolu te ci arab ci ci ci usul fiq bu fekkee dafa am benn régal boo xam ne si dafa jiitu woon comme dem leen julli ci jàkka ya ak farata la ngeen jullee ci jàkka ya sunnam la mu akkat ngeen julli ci jàkka ya loolu bu pour mu pour mu ñu dàq ko faaw ndigal bii ñëwaat di ko teg faaw dañ koy tudd ci biir maanaam baatu toog leen ku toog sa kër kenn mun cee déggee ni kenn du dem jàkka ja bokku ci parce que kenn tudd ko looy wane du ci du ci bokk loolu loolu loolu loolu régal la ci usul maanaam loolu maanaam koo xam ne règle boo xam ni xaayida la bu ñu xam ci islaam mu nekk ndigalu dem jàkka julee ci jàkka ja loolu regal bu sax la ba pare beneen regal bu lu koy follewaat nag wala lu ñëw ni jamono ji bu ci dem faw ñu tudd ko ci ci règle bi waxaat maanaam faaw mu wax ni dem jàkka ji faw mu tudd ko ñu dégg ko ñu xam ne yonent bi kon nee na jamono ji bu kenn dem jàkk waaye mbooleem fu li ñu li ñu indi yëpp ak xisa indi yëpp baatu ñàkk dem jàkk amu ci te sax saxaaba yi sax ja booba teewul danañ dem ci jàkka ja yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi Seydina Omar maanaam jamono na xewoon na fa ci jamonoom waaye dañ daan jëfandikoo dañ kenn musatul sax ñàkk jëm jàkka ak am kii li ñu indi ci si ibnu li ñu doon wax ci wàllu euh, ci wàllu dem jàkka na ngeen jullee seen kër yi loolu moo gën a reelu li gën a tekk nii Sénégal moom bi dafa am crise xam fiq crise maam da maam xa réer gu jéggi dayoo moo am ci Sénégal ci nit ñi dégguñu masala fiq yi ak it xamuñu masala fiq ñu koy doxale ni ñu ñu taw la woon maanaam dafa benn benn xaadisa ab xew-xew bu amoon boo xam ne dafa xew loolu pour nga mën cee sukkandiku ma taamim ko dafa il nga am lu tegtale loolu ni lu lii bu amatee rek na nga ko taamim nga mën cee xiyaas dafa am ci islaam xiyaas yoo ñetti xeetu xiyaas moo am te yooyu yëpp amul benn bu ci am ci wàll googu gaa yi ñu wax ni taw taw rek yoon bi saa sam tere na ci maanaam nit ñi dem jàkk muy julli leen seen kër yi loolu bu dee yonent bi saa sam xare la woon fayar la woon mu sedd ànd ak taw léegi nag yonent bi nag wax ni kenn ku ne fi nga campé da nga fa julli waaye moom yonent bi sa sam ka wax loolu mook moom ñoo nekk mook Bilal Ibnu Abbas ba muy wax gaa yi ni leen julli leen seen kër yi booba moom ma nga ca jàkka ja moom ak ak noddukat bi ak ña fa nekk mu si des nag bu ñëw ndax dafa bañ ñu mu ñëw ñu daan te loolu jamono ji dafa euh, làmp yi mooy dàq loolu waaw lii wan ni maanaam du jàggee ni lu xe da gars yi dañuy jaawale maanaam nit ki am ngàntal dem jàkka ak ñu bëgg a ngàntal ñëpp dem jàkk loolu mu amul tëj jàkk amul ci islaam yow buma man buma ma ba am ba am ba am ngant bu mënuma dem jàkk is dana tax maniko ñepp kenn dem jàkk ndax man dama febar yow sa febar day tax dana matal ñëpp man dama am problème bu tax mënuma dem ci islam nangu nako yow sa problème lo bobu kenn ko matal ci ñepp yow ya am ngantal dem jàkk nit ki am ngantal dem jàkk bokku ak nit ñi am ngantal dem jàkk te jàkk nak amul mom te jàkk kenn amul amul ci islam jàkk kenn duko tej te gouvernement président de la république manam euh, sañ-sañam egul ci bir mi ngi yem ci biti jàkk ji dafa am benn benn ci ci ci nettali ci téere yi benn buur boo xam ne dafa wax benn waaye ni ko tey jii guddi gi sama territoire bu ma yilif bu fi fanaan bu ma la fi gisee rek da xam waaje daaj dem jàkk dem fanaan ca jàkka ja ba mu yeewoo buur bi ma ko gisee ñu ko xanaa waxuma loon bu fi fanaan mu ni ko ca jàkka ja laa fanaan borom xam-xam ni ko nag ah jàkka ji nag moom moom sa sañ-sañ eggu fa moom ndax yàlla ci boppam moom suuf si moo jël jàkka taf ko ci boppam nim ni nga xame ni yàlla moom jul ñépp moo leen yilif di seen buur nii ñii ñooy samay yi mu taf leen seen bopp maa xam nga yàlla moo moo moo euh, mooy méngoo ñëpp ñëpp ay ay jaamam lañu waaye ne nee na ñii samay wëli lañu aw ala inna awliyaa yi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun jàkka yi ci biir barab yi nekk ci àdduna bi yàlla moom suuf sépp waaye tànn na ci jàkka ni moo ko moomal boppam moo tax buur amul droit amul sañ-sañ eggu ci biir jàkka xalifa général amul sañ-sañ ci te tëj jàkk waaw orientation lan sañu joxe rek waaye nag amaa nag nit ñi bu ñu dem jàkk nag kooku moom kenn amu ci benn sañ-sañ mboolem tegtal yi ñuy sukkandikoo ci tëj jàkk ñi ñi ma dégg ñuy wax ñëpp amul kenn ku ci sukkandiku lu wér amul ci laay gën a man gaay yi nekk ne day nefe di soow rek di wane ni am nan xam-xam ak di xas ñeneen ñi naan gars yi dañuy mbelal di wax te fekk na ñoom ñooy wax rek li ñuy wax wax seen wax yi bare na torop ba mujj sax lënt lënt ci bopp yi ba mujj jur ñaaw njort ba mujj indi ay problème ndax nit ñi war na wattandiku pexe yi ñuy tëral ci réew yi ngir teqale nit ñi jullit ñi war kenn waruñoo nangu maanaam leneen benn moo xam gouvernement la moo xam leneen la indi ay mbir yoo xam ne day teqale biir jullit ñi ñu day teqale tarixa yi wala day teqale këru këru diini wala nit ñi loolu waroon ko wattandiku ndax loolu musiba mu garaaw la bu kenn nangu ñuy indi naan kii séeréer la kii pël la kii wolof la yooyu day teqale nit ñi kii euh, sama sëriñ moo tiim yooyu amul benn maanaa ndax am na yoo xam si yow yow mi naan sama sama sëriñ moo tiim ñëpp yow loolu mënoo ko lijanti ñay dem ca xadar yàlla ba ñoo xam loolu waaw ñay dem ca xadar yàlla ba ñooy lijjanti mbiru tariixa luy tariixa ak sëriñ bu ëpp doole bu ëpp doole waaye taali boo xam xamoo li nga faraane sa diine sa xamoo ko naan ci sëriñ bi mu ëpp doole da ngay wax loo neex rek su ko defee yooyu nag nañ ko bàyyi xel te delluwaat ci islaam kon nag jullit moom fi may jeexale wax ji mooy jullit ndeke lu xew ci àdduna lu mën a doon xéewal la ci moom yoon saa sax neen taawun te ceebar bi kenn ñëwu ko tudde ku ko tuddee taawun weddi nga wax yonent bi ndax dugg na Madina te yonent bi ne taawun du dugg Madina kon na neel feebar la rek feebar boobu nag ndawal yàlla la yàlla ci boppam moo ko yebal bu ñëwee nag njariñam mooy lan mu la ci yàlla rek xéewal yépp xam li gën a rëy ci xéewal yi mooy dellu ci yàlla moo tax feebar sax xéewal la fe wax ma feebar xéewal gu rëy la ndax boo feebaree rek ba wax ma feebar yi gars yi feebar dëgg dëgg ku feebar da nga da nga da nga da nga wéetal yàlla dafa am benn buur benn waay bu laaj benn buur bu laaj benn borom xam-xam ci islam Niko kan mooy yàlla mu ni ko boo duggee ci géej dugg ci gaal dem ba ci biir géej gi gaal gi xar tas nga nekk ci benn la nga xam ni fii mu alka rek alka rek moo fi des mu ni ko boobu sa xel ki muy dem kooku ma yàlla nekk nit ñi li tax nit di bokkaal yàlla mooy regg ceeb maanaam nit ki nekk ci jàmm rek mais bu problème amee rek ñëpp delluwaat ci yàlla te Sénégal lii amul gisuma fi problème de nit ñi nan wattu ni ko di gaat ngaal seen bopp musiba naan l'heure est grave te affaire bi lu grave te kenn gisu ko fi yëf yi fi ñu ko eggalee amul l'heure est grave ma ne ma man ma leen l'heure daal mooy def luy tax a dem safara kese kees loolu mooy rek mooy l'heure est grave waaw l'heure est grave mooy fexe mooy moytandiku fu ñuy xeebe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'heure est grave mooy fexe mooy ànd ci ñuy tëj daara yi di dem seen seen daara yi di tëj seen bunt di leen tëj di leen naan dañuy tas daara yi di profité ci avènement bi pour tëj loolu mooy l'heure est grave waaw l'heure grave mooy maanaam ñëpp ànd ci tëj jàkk yi ba sax léegi dañ ko war a tëj war war koo tëj loolu mooy l'heure est grave l'heure mooy jullit ñi dem ba réeré ni ndeke yàlla yàlla ci boppam du ra feebara rey maanaam ragal feebar te ragalu yàlla jullit du ragal feebar du ragal président du ci wéeru te man li may laase ñi nga xam ne si ñooy nitu daara yi mooy ñu bañ a xaar ci gouvernement dara waaw nitu daara du sukkandiku ci gouvernement ci yàlla lay sukkandiku ku am ku am dara ci yàlla jullit ci yàlla rek lay sukkandiku jullit du sukkandiku ci xam-xam du sukkandiku wilaaya sax kenn du sukkandiku du sukkandiku wax maa ngi ci du sukkandiku ci alal wala ngay sukkandiku ci mbooloo kuy sukkandiku na ngay sukkandiku ci yàlla lépp leen loo sukkandiku yàlla yaa ngi bokkaale ak yàlla jullit du yaakaar ku dul yàlla du ragal lu dul yàlla kon ñun kenn mu ñoo tiital nan bàyyi tiital nan wax feebar bi am na nan moytandiku ñëpp respecté d'accord nañu eh, kilifa diine kay dëgg-dëgg ay jàmbaran ñoom ñu arrêté seen seen xew yi am Sénégal xool ni mu daan xumbe rek weer wu ñaata gàmmay am ñaata conférence ay am ñaat yépp nit ñi bàyyi ko ndax d'accord ci affaire bi waaye nag jàkka yi nag ñu yàlla leen maa ko moom jàkka yi ko <laughs> kenn sañ ko bàyyi nañ ko organiser ñeen organiser marché yi man daal li ma jaaxal gars yi lu tax daal ñu ciblé jàkka te bàyyi marché yi bàyyi barab yi naan jàkka yi jàkka yi jàkka yi garaaw gars yi dem day julli juróom ci jàkka loolu fan la garaawe ban garaawite moo ci am bu gars yi euh, tisbaar jàkka ji ba ñaata waxtu la du 15 minutes du ko passé bi may duggee la ak bi ngay julli bay génn du passé quinze minutes waaw waa léegi nag marché yi ñaata waxtu la fa nit ñi di am. bu fekkee kay bu fekkee rek dafa am loo xam dafa moo logique bu fekkee ñoom daje rek la ñuy bañ kon nag marché moo gën a garaaw jàkk kon nan nangoo nag ñu organiser marché nangoo ko ñu organiser bërëb liggéey nan ko nangoo ñu organiser jàkk jàkka yi da ngay gis ku naan la maanaam ci eh, eh, maanaam danoo tere ci islam kuy julli ñu teqali ko loolu mooy problème amul majzuum kay majzuum koo xam ne si dafa dafa gaana ci islam ba ñu boo ñëwee garaan bu fekkee dafa garaaw da dem ci dellu ginnaaw kon feebar bu amee moom islam booy ma téere fiq sax ci fiq sax xalil dafa wax ni dagan mën na noo maam teqalikoo gu ñu teqalee ko jàng fekk am lu ko waral loolu dara néew ci xalil téere bi ñu mujjee jàng ci fiq ci mazhab bu imam malik kon lool rawatee nag bu ñu dafa am lu ñuy daw te man li ma gëm dëgg-dëgg man li ma gëm man jàkk feebar kenn du ko wàllee ci biir jàkk moom alhaaji mujib mu nekk fii alhaaji mujib moo ne imaam raati bu Louga ci moom laa njëkk a dégg loolu mu koy wax te bari na sax li ko daan wax maanaam moom ci waxum waxam euh, euh, seen kii alaaj mujub tafsirim yi mu daan def ci alxuraan maanaam xam nga doon def ci xam nga xam ngeen ko alaaj mujub mu ci jàkk ji jàkk jàkk Grand lugo gi yàgg na ñàkk dafa booy suñ nopp yi muy wax ni jàkk feebar du fa wàlle xam nga gars yi bu ñu xamoon loolu kon problème bi jeex na te lii wan ni feebar du fa wàlle maanaam dañ ko mën a dégg ci yu bari borom xam ne day wax ni bu yàlla doon mbugal kaw suuf law kaana allaahu yuazibu ahlal ardi lama naja minha illa ahlul masajid bu yàlla doon mbugal waa kër suuf xam nga ñuy mucc ñu nekk ci jàkka ja suñ borom wax ni yow seen xaaj maa ne kuy dem jàkka da ngay yéene ci dem jàkka ji mel ne maa ngi ziyaara ji yàlla maa ngi ziyaara ji yàlla nee na nag boo dee ziyaara ji yàlla boo demee yàlla dana la teral waaye yàlla dina da nga dikk di ko ziyaar ji mu lay teral di teg feebar te jàkka yàlla da ko fonk sax nit ku bàkkaar yi ngay def li li muy bari bari ba kenn du ko dugaale jàkka boo nee am na jàkka jàkka joo gis malaaka yaa ngi fa nekk euh, bàkkaar kay moo gën a sew moom kenn ko teg bët moom li nga mën a gis ki microbe bàkkaar moom benn micro benn microsoft mosu ko mënu ko gis malaaka yi day nekk ci buntu jàkk yi boo ñëwee dañuy rocc sa bàkkaar yépp kenn du dugge ci biir jàkka bàkkaar boo génnee nag ñu laaj yàlla ndax ñu dellowaat nit ki bàkkaar yi wala déet yàlla ñu rus naa sama jaam bi bàyyi barab yëpp ñëw sama barab ma rocc ay bàkkaaram di ko tuddilaat ne ko naa ko bàyyi naa ko baal naa ko moo ci yoon saa diggante julli gu ne ak moroomam day kafaaram mboolem bàkkaar boo def waa ki bakkaar ni mu sewee bu fekkee du dugg jàkka loolu mën nga ci dégg ñi maanaam ci ci euh, dégg nga wax bi yàlla doo dem ci jàkka ji mu leen fay taral alaaji boo yéenee maa ngi jàkka ji sàkk bale ngaa génn faaw yàlla dana am lu la xamal waaw loolu xam nga loolu moom nekkul loo xam si dama naan xadis sàngam wala ay sàngam ay nitu yàlla ñoo am seeni déggin yooyu dégg ko te man gëm naa ko nangu naa ko ni jàkk feebar du fa wàlle man loolu laa gëm loolu nag bu ko ñëpp xamoon jàmm-jàmm am donte nag du tee ku ni man damay jëfandikoo maanaam euh, gest barrière yi ñuy wax nga jëfandikoo ko ñu def espace yooyu koy nangu nan ko bu ko defee ko am amul benn problème coow li daal la war a maam daal gars yi daal ñi indi problème ak ñi dem bay xas ñi julli ji yow julli ji woo kay yow julli ji woo noo xase kii julli jàpp sa ñàmm rek waa ji gëm na ni moom day julli ji bàyyi ko mu julli ji mu ni sax danaa jëfandikoo masque danaa teg da nga espace ci diggante yi nga ne eh, eh, yooyu yëpp ya nga bëgg ko dàq waa xanaa ko yow julli jàkk ji nga bëgg ko dàq bu fekkee principe la moom kon daje rek ngay bañ moo xam jàkka ja wala fu lu jàkk rek loolu ngay dek dàq dàq lépp te Sénégal nag duñ fi nangu ñu ni ñii la ñuy may ñuy julli ñii duñ julli léegi keneen ko di kër yi kër yi ñu tuddee kër yu mag yi ci diini ji ñoom bu ñu julli kenn ñëw kenn ñëw faa yebal benn gendarme kenn ñëw fa yebal policier mu leen di tere waa eh, ñu nag eh, ndaw ñi ñu gën a néew doole yow boo jullee ñu eh, ñu fekk la fa loolu doon def ci ginnaaw ba léegi nag kon ba président ne léegi léegi mën nan dund ak virus bi ah nan ko dund ak moom te xam ni kenn mënu ko fee jëlee ku dul yàlla ku gëm ni leen moo ko fi jëlee maanaam donte loolu mbir mi wax yi bari na ci lool waaye daal lu mën a xew mu mbiru yàlla la ndax dara du yëngatu dara du dal lu ci kàttanu yàlla kon daal ci loolu daal la doon laayante biir di yem foofu di wax ji nag maam ni ñu ci jublu rek mooy laayante bii rek ak waxante dëgg ak wax li nga xam ni ñun loolu doon gëm waaw nit moom day wax lim gëm te kenn war fay wax gëm tam nii man rek maa fi am xam-xam loolu amul wa fawqa kullu zi ilmin alim ma principe boobu kenn waru ko doxee bu boobaa dootoo am xam-xam maanaam danga mag ñi gis ni Seydi Hadji Malick nga xam ni bëree xam-xam Hadji Malick ngir yi mu doon wax yi ñetti téeméeri ngir ñoom moom lépp la xam Seydi Hadji Malick ne ne yàlla xamal na ko ñetti téeméeri ngir ak juróom-benn fukk yam ci aslaam yépp te moom gëmul ni dafa am xam-xam ndax ku gëm ni danga am xam-xam dootoo yokk te débat débat ci islaam débat yi ñu def nii yooyu ci islaam islaam da koo da koo xaraam dafa araam sax faf maam débat werante dafa dafa ci islaam dafa araam maam kuy dem ci débat islam débat bi dafa war a nekk débat gëstu feeñal dëgg rek dëgg gi nag fu mu feeñee fu mu ñëwee nga nangu ko bu fekkee dëgg gi yow bu yow da kenn ku ne da nga di naa layal naa fexe nu ma layal sam bopp rek loolu islam da koy dàq waaw moo tax lii li gars yi di daanaka jotu def débat maanaam waaye man ku ku d'accord ñu toog ci wàll googu ñu toog ñëpp duñu dégg ngay layal ni dana maanaam feebar dana tax ñu tëj jàkka dégg nga man may may layal ni feebar war na tax ñu tëj jàkka dégg wax bi amul ci loolu mi ngi soog a am ci islaam laa wax ba yonent bi ba yàlla yooyu yont bi saa ba léegi ba jamono jii tëj jàkka mi ngi soog a am donte àdduna bépp ci ànd loolu moo gën a garaawal mbir ni kon gars yi am na ci mbir yu nekk lu tax ñëpp ànd ci te yenn saa doon na wax ni diine nam tumuraanke woon mujj jamono tumuraanke woogu mooy dellu su boobaa nag tumuraanke gu njëkk ga ci nombre la nekkoon dañoo néewoon tumuraanke tumuraanke gu mujj gi nag ci pas-pas la nekk maam juriñ day bari te yàlla du leen jaral dara gis nga jàkk yi gars yi naan kenn dem jàkk yi boo yenn saa sam nee na gars yi boo leen fi ab yàq bu am yàpp rek ñii boo julee gee da nga ca lekk ne da gars yi dañ jàkk ja tey jii boo ku ñu woon jàkk ju ne ku fa julli donte corona bi mu fi dafa garaaw boo demee sax dana la dal waaye ku julli boo gënee jox la cinquante mille gars yi julli de du ay caaxaan kon yàlla moo ñu jëralul dara ku yàlla jëralul nga dee te yàlla kat yàlla moo dàq xaalis yàlla moo dàq jigéen yàlla moo dàq luy ñam moo dàq moo tax suñu borom ni fafiru ilallaahi daw leen ngeen dem ci yàlla bala ngeen a dee te ñu yàlla fa la nekk ba ñuy daw jëm ci moom mu ni dem leen ci nitu yàlla yi ñu xamal leen yàlla waxuñu ngay dem ko ab ci ab seytaane boo xam ne lay wëñee mu sànk la ni la bul julli bul woor wala mu lëndëm nangam nga nangam waxuñu loolu de wala mun na li yàlla xaraamal loolu dagan na bu la neexee def lu la neex te maa la garanti waxuma nga dem nga dem ci koo xam ne day delloo ci yàlla rek la ma waxoon ci bu njëkk ba mooy ñi nga xam ne si boo ñëwee yàlla lañuy wax ak yonent bi rek tariixa boo gis ci tariixa yépp du génn alxuraan wa sunna lu ko génn rek baaxul kon nag ñàkk compréhension am na maam ñu ñu déggul ba tax ñu defee nii tariixa man naa wuuteeg alxuraan wa sunna te sax nit yàlla yi seen xam yi ñuy wax seen tariixa yi xam nga ko lan moo ko may jëfee alxuraan wa sunna moo leen yeggale ci am xam-xam boobu yoon saa dafa wax ni maanaam euh, sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci nee na soo jëfandikoo li nga xam yàlla xamal la xam boo xam ni daa jàng ci téere suñu borom ni ku ragal yàlla yàlla xamal la kon moo tax ñu yàlla ñu ñun de bu gaa yi nii dañoo wuuteeg sunna ñun dañuy xaw a jaaxal ndax ñun jëfandikoo alxuraan sunna moo ñu may xam-xam bi ñu am moo ñu may maqaama yi ñu am motax amul kenn kuy egg ci maqaamu diine ba tax sharia wàcc la bu fekkoon la wàcc kenn kon yonent bi saa sam lay wàcc te yàlla yàlla wax na yonent bi saa sam su ma jaal naaka ala shariati min al amri fattabiha ñun yàlla ñoo la teg ci sharia boo xam ni al amri mi ngi bàyyi ko suñ ndigal ñun yàlla yow yonent bi li ngay for for fattabiha na nga topp sharia bi mu yamu ci mu ni ko wala tattabiha bul topp ahwa allazina la ya'lamuna banexu gaay xamul naan sañ nga kook man nga ko tënkul ci li ma la wax te yont bi moom mënut a bàyyi sariya moom yonent bi mooy koo xam yonent mooy koo xam ni mënut a def lu yàlla tere loolu mooy yonent kon nag yàlla nañu yàlla teg ci yoonu njub ak yoonu gindeeku ak yoonu texe musul ñu ci yoonu seytaane musul tamit ci pexe yi ñi yàq bëgg yàq islam ji ba bëgg koo fay ay Abdou Aziz wax na wax na ba tàyyi ni am na ñoo xam ne fii ci réew mi seen pexe yépp mooy nun fayee daar yi xam bu fi nekkoon tey ñi daara yi tumurankee wala ñi xal diin yëpp maam kilifa yëpp war nañoo daje boroom xam-xam yëpp waroon na daje ni bu gouvernement bi nan bàyyi daar yi ñuy tëj ak di jël xale yi di leen yóbbu di sukkandiku ci ay feebar génnee xale yi seen biir daara yi ak génne nit ñi seen kër yi benn la xale bi nekk internet nekk ci kër bi di jàng ban problème la am ak feebar bi ba tax nga ko génn ki moom ay weer mi fi du génn fa lay nekk ban problème am mooy nga fekk nit ki ci kër gi nga génne ko benn rek te loolu du solution dañoo waxoon dañuy jàppale daara yi ñoom jàppale wutul leen na leen bàyyi man nag li ma sëriñu daara daal boo xam ne sëriñu daara nga doo sukkandiku ci état doo ko yaakaar doo xaar ci moom dara waaw sëriñu daara ci yàlla lay sukkandiku bu fekkee sëriñu daara nga donte mën naa am ci biir ay rëq-rëq yu ci am mais loolu ci daara yi ni koy régler seen bopp waaw ku jàngul alxuraan jàngul xadis mooy ñëw nii yow yow yow nii ngay jàngale alxuraan yow moom moom jàng ko noo koy organiser. ñun ñoo xam nu ñuy organiser suñu daara ñaata inspecteur ñoo am ci islaam fi ñuy jàngale ci arab di jàng ni ñuy former nit ñi ñuy jàngale ñooñu kay lañu war a wax ñu fexe ba sëriñ daara balaa kenn ubbi daara ñu former la ci wàllu njàngale dafa am dafa am yoon bu fekkee formé waawul la ci biir xam nga am na daara dañ defar en temps formation boo xam kenn du ko tudd kenn dañ lay formé mais ni ñu lay formé ndax da ngay xool ci sëriñ bi ñu daan doxee nga noonu mais teewul tamit ñu lay dolli comme ni jàngale araab bi ni mu amee ay formation nga xam jàng dafa am pédagogie bu ñuy jàngalee loolu kenn moo ci jiitu sëriñ daara yi kenn moo ne gën a xam pédagogie ñu ñuy wax ko rek yooyu day suñ ko toppee day gudd ngeen baa ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullah